Vous, Youssou Ndour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. naa leen euh, ñu tàmbali massawu euh, Saint-Louis mane ginnaaw bi mu ñàkkee waajuram jigéen ñu ngi koy jaale di ko massawu di si massaale ñëpp di si jaale waale également mboolem groupe Futur Média ak euh, Youssou Ndour ak mboolem Youssou Ndour head office ak Super Étoile tout le monde di ñaan suñu borom daal di koy dolli ay leer tey nag li ñuy tàmbalee du doon loo xam ni xëy na dina jubul. ñii nga xam ne ñooy sileen yeeg ñu sant si seex ñooy ñëpp ndax mbiri mburu mooy li ñuy tàmbalee wax ci saa ba ñu ko tuddee rek seenu fi dina rëcc li nga xam nag moom moo ko jur mooy jamono yi nga xamante ni euh, euh, ay koppar yokk na ci njëg nga xam ni moom la ñuy jëndee euh, saako farine bi ñu yëngu ci wàllu boulangerie daal di jóg indi si ay tontu seen diggante ak nguur gi bëgg si am lu leer tax Amadou gay daal di fiy teew di ki nga xam ni moo jiite fédération. bi boot mbooleem ñi yëngu ci wàllu ko boulanger kon loolu moom mooy solo waxtaan wi lu ñu ci solee te joxuñu ko kàddu ginnaaw bi ñu ko dalalee ba noppi mu daal ñu si indi ay leeral laataa ñuy sobbu si waxtaan wi Gaye salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam donc maa ngi euh, yëpp di nuyu aussi euh, vraiment euh, yéen ñëpp di présenter vraiment émission bi boo xam ni je pense que c'est suivi du point de vue international. donc di rafetlu vraiment invitation bi euh, di nuyu surtout nag sama collègue boulanger yi parce que démb nga woote région yëpp ñëw mu mel ni waa Goudomp ay Tanaff ay Sédhiou jóge ba fële waa Matam donc ñi gën a sori waa Kaolack waa Tambacounda. mburu mburu mburu dénominateur commun la. toutes ces régions là ñëwoon rek. pour wuyu su la fédération nationale des boulangers sénégalais. Mm. parce que dañoo bokk benn problème mooy le secteur. Mm. effectivement secteur bi temps yëpp euh, depuis mois de mai ba amoon benn réajustement sur le prix de la farine mm-hmm. mu bëri ay interprétation en mm-hmm. mais ñuy dem parce que ñun aussi on est une fédération boo xam ni ki ki ki balaa ñuy wax balaa ñuy def dara dañ koy dañ koy étudier te aussi duñu tëb rek di wax balaa ñuy def dara aussi dañuy waxtaan ak euh, état bi ba xam fu ñu jëm mm-hmm. si loolu bi yëf ji amee ba léegi ñu ngi waxtaan di wax ak ñoom euh, lem non problème euh, léegi nag euh, si loolu sax lañu war a dem des assises le le 28 novembre d'ailleurs dañoo changé sa appellation bi def ko concertation nationale de mhm. la presse le consommateur y a tout le monde mais nga may ma rek avant may démarrer pour que ñi ñuy sitaan xam l'importance du secteur mhm. xam nga dañuy yaakaar ne boulangerie boulangerie facilement comme ça. Mais nous sommes des industriels. Est-ce que vous savez que au Sénégal, on a plus de 1787 boulangeries. Mm. Ça, c'est le nouveau recensement. Et sur les 1757, mm. oui, il oui. euh, y a plus de à Dakar. Mm. Et que vous savez que aussi, l'on a généré plus de 500 milliards de chiffres d'affaires. Hmm. on produit plus de huit millions de baguettes par jour dans ce pays lu mu générer plus de trente cinq mille emplois directs et quarante mille emplois indirects. Mmh. loolu ñun bu ko xaymaa aussi nekk na vingt et un virgule six pour cent du secteur secondaire mis encore trois virgule soixante onze pour cent sur le PIB national. mais quand même un secteur comme cela dañ ko war structurer bàyyi anarchie bi am parce que aussi c'est facile de dire que. boulanger yi dañu def nii dañu saleté yi dañu def nii yëpp am na certes mais quand même il faut dañu xam valeur boulanger parce que le le la le de la yi c'est un métier noble parce que ñun on est fier d'être boulanger donc sénégalais yi xam ni li ñu nekk nii ñun non seulement ay formateurs lañu si métier bi amul école yi dans ce pays là. c'est les boulangers qui forment sur le tas. waaw yooyu loolu yooyu loolu yu la ñu secteur kii mais en attendant yéen a yéen a ngi xiifal su ma mbokki si leen yi. non non non egguñu foofu li problème bi mooy effectivement prix bi démb bi ñu waxtaanee c'est que le prix de la farine euh, dañ ko ajusté ñu ni certes prix farine bi chair na actuellement au Sénégal loolu c'est une fête bu ñu analysé hier. serre bi mooy ñaata ñaata lañ. si actuellement ñu ngi si 17 200. jóge si quatorze mille. non il faut ñu situer voilà. Mmh. c' que il faut ñu ajuster waat prix bi affaire pour que li ñuy comprendre. Mmh. le 22 mai 2013 euh, dañoo def lu ñu doon yàgg wut mosuñu ko am mooy que la farine n' était pas homologuée c' est uniquement on avait homologué uniquement le pain mais homologué woon farine bi. Mmh. donc pendant 12 ans par exemple on a toujours battu pour am loolu amuñu ko. maintenant le 22 mai 2013 yàlla def suñu première réaction état bi jógee jëlee vingt mille six cent homologué le prix de la fenn à à dix huit mille mais entre avec euh, l'ouverture yeneen meññi minoteries yi mu am une concurrence entre les minoteries qui est sur le marché bi léegi un boulanger mën nañ zone zone parcelle par exemple bi ma nekk. Hmm. un boulanger X peut acheter à treize mille. Hmm. l'autre à l'autre quinze mille l'autre seize mille. donc xam nga y a un officiel là donc c'est la concurrence entre les meuniers qui font qui a engendré que aujourd'hui voilà mmh. que aujourd'hui un boulanger parce que 13 000 14 000 15 000 ba mu nekk ajusté mu nekkoon loo xam ni boulanger yi sa bopp yëpp la pare mm. non seulement defaat yokkaat poids mburu mi parce que dañuy jox un poids de 190 grammes boo xam ne dafa jóge 210 wàcc dix grammes loolu déjà c'est un problème je pense que amoon na émission yi mu ñëwoon fii ba mu amee expliquer que lii danger la et d'ailleurs danger boobu nag moo ñu dal ñu tey hmm. boulanger yu bëri am problème non seulement su le prix de la farine mu am incompréhension sur ce prix là léegi nag jafe-jafe yooyu nag ñu tar ba léegi léegi ñu bëgg na léegi le problème structurel du métier dañ ko war a régler problème d'organisation problème ouverture anarchique il a tellement d'ouverture de boulangerie dans ce pays là hmm. les gens ouvrent n'importe comment mais en attendant li am solo mooy njëg waaw c'est pourtant pour ouais. nous expliquer l'importance je donne exemple il y a plus de 80 milliards par exemple sur la livraison par exemple qui sort du pays est que vous savez que la plupart des gens mbir mi kay mbir mi kay kenn nattalewul njëriñ mag yooyu solo waxtaan wi tigi tigi mooy njëgu farine nga xamante ni xëy na jamono ji méngoowul ak seen bëgg-bëgg waaw mais xam nga boo loolu justement parce que ñun bi ñu demee réunion dem am nañu ni boo jëlee lépp def ko si njëgu farine bu kese imaginez aujourd'hui hmm. si champ de bataille bi. Mm-hmm. non non non. très bien on veut là qu'on mu structure. c'est ça la la réalité. donc d'abord prix farine bi cher na. Mm. mais il faut qu'on essaye de structurer. moo tax ñu proposer des propositions hier. oui pour régler pour donner des solutions pour en avance. que hier notre résolution c'était quoi. Wow. pour donner une idée des résolutions hier gars yi dañ ni li ñu bëgg mooy aujourd'hui bi mu wàcc. su état bi ne mënu ko bëgg protéger par exemple meurtriers yi kon nag am na levier bu ñu koy jox mooy la suppression ou bien la suspension de la TVA su la farine parce que il faut ñu xam ne ñun boulanger le prix du pain que le consommateur achète nous ne collectons la TVA c'est-à-dire que ñun le boulanger bi bu ngeen di jënd mburu fanweer hmm. ñun yokkuñu ci TVA donc on ne collecte pas donc on ne peut pas collecter wuñu ba pare di fay TVA sur la farine la levure sur les amiants téléphone sërëm loolu am na ñu ni kon ne état bi jël levier suspension de la TVA sur la farine fait baisser le prix du pain. muy benn ñu ni bi ñu ni. Hmm. Euh, balaa ñuy def suñu plan d'action mu clair ñu ni kon dañuy waxtaan ak chef religieux yi. Hmm. expliquer leen notre démarche parce que ñun notre slogan c'est nourrir la population avec une euh, vraiment quelque chose de sain. n'est-ce pas nous sommes au service de la population. ba ko woon si hmm. hmm. parce que aussi dañu di seet wala leen jox qualité mburu bu pain hmm. beneen bi mooy su dee dans ce cas loolu mënul nekk am na benn jàngoro bu métti bu nekk si ñun mooy la livraison bu nekk boo xam ni on livre n'importe comment on fait comment ni ñu jaay mburu si boutique yi amul hygiène amul dara ba nga xam ne yow mi nga xam ni yow mi liggéey loo si am dara ñu ne loolu. dafa am décret bu ko laal 102 2004 ñu ne nañ ko appliquer immédiatement balaa ñoo dem assise mhm. parce que on ne peut pas pour wane bonne volonté état bi nii ah bëgg naa waxtaan ak ñii mhm. suñu ko deful nag fii ba gàmmu màggal passé les gens ont dit là c'est là on va faire une évaluation mmh. qui aboutir à un arrêt total de pollution du parc. très bien waaye da ngeen xaar la réalité ngeen xaar bu ngeen soog a téye mburu mi lu ko may xéwal bi dana am ay màggal gi gàmmu ah, yëpp rek na ngeen bàyyi magal gi paas na ngeen bàyyi gàmmu gi paas. ba si appel bi sax lépp rek. lépp rek yëpp rek waaw waaw ba tey rek yëpp hmm. man na xam nga du ma contre syndicaliste. parce que li syndicaliste la. nous sommes pas des syndicalistes. nous sommes des patrons boulangers mouvement boo gis syndicaliste yaa ngi ñaxtu. moom <laughs> ngeen syndicaliste. non ñu on fait des propositions. waaw mais yaa ngi garaw. ku du syndicat ñëwoo garaw. non garaawuñu. grève wuñu. mais amuñu langage grève ñun. on non mais c'est que pourtant pourtant li ngay wax moom moom mentoram loolu daan wax mooy participation responsable. ñoom ñii participation responsable la ñuy na léegi. mooy ma li ma déglu comme déglu naa nga wax bengal. oui da mooy bàyyi après dañuy joxaat kàddu nga xam nga xaw ma lu man di xaw Sénégal la la ñu mën a jënd sañ ñoo kuy liggéey sañ nga am satisfaction comme sañ nga bañ a am satisfaction laaj sa kilifa muy nguur gi mu defal la ko mais li ma d'accord daal mu war a am mooy bu prix farine bi wàccee war na feeñ ci bi wala mu feeñ ci prix ñun consommateurs yi war na ñuy sóor wax dëgg yàlla yéen ñi xam ko xamoon mburu da nga lekk démb ak tey mburu yi ñuy lekk nii ay xott lañ ñuy jox c'est dû à quoi xawma ko en tout cas ak lu ñu mën di def ñoom ñu yor seen secteur li ñu war a njëkk a kaas bu ñu kaasee prix bi nañ ci boole consommateur yi jënd seen alal ci te ñu teg ñu jox nit ñi produit bu baax. léegi mburu yi day xolli ay palais de. non dara baax ngay xam parce que vraiment mburu amul Sénégal boo génnee Sénégal jënd mburu xam ne lekkoo mburu au Sénégal. nan naa nag loolu moom vraiment lu ngeen di seen assises yooyu war nga ko ci mën a boole ba mën a jox Sénégal yi mburu moo xam ne mérite digne de ce nom parce que aussi di négocier ay prix tax nga togg ngay ngay jaay loo xam ne say client xam nga ni lii du lu baax. joxande rôle boulanger deuxièmement balaa ñoo leen structuré yéen seen bopp seen entreprise yi ngeen yor seen biir entreprise yi yéen war ngeen njëkk structuré seen bopp boo demee ci boulangerie c'est très rare nga gis boulanger buy fay fay bu baax ay at par employé dañuy exploiter seen emploi mais souvent ay journaliers la ñuy am. waaw ah, may may rek. te ay sénégalais lañ. Mm. di exploiter ñuy liggéey ci ñoom. boulanger boo dem ka am njariñ la mooy ka moom boulangerie bi. mais ñu fay liggéey ñoo gën a sonn ci réew mi c'est rare nga gis sax un boulanger buy fay et presque ak crédit social pour seen pour seen liggéeykat donc pour nga mën a xeex na leen structurer dama structurer sa bopp loolu nag dédouane dédouane wul état bi daf leen war a protéger mettre leen ay conditions yoo xam ne bu ñuy liggéey dañ am bénéfice ku liggéey liggéey pour perte waruñu bàyyi aussi ñiy yor fa parce que affaire bi ñaari chaîne la ñiy jaay farine ak ñii ñiy defar mburu ñi jaay fer ñooy war a organiser ñuy jox prix parce que loo xam ne ñëpp a soxla Sénégal yëpp a ko soxla di ko lekk chaque jour waruñu boole produit boobu comme yeneen produit yoo xam ne ku mu neex nga jël ku dafa nekk loo xam ne dundu Sénégal ci la bokk donc même bu ñu teg ay impôt wala dañ ko war a dañu war a sóoraale Sénégal yi nga xam ne ñoo ko utiliser mais tout cas yéen nga xam ne yéen les professionnels war leen négocier n'importe comment ak n'importe quoi ba tax ngeen nangu prix yoo xam ne la ngeen di jox Sénégal yi te aussi nee nga 180 dama wax nga poids bi nga wax foofu bu soir bu mën naa la défier ñu àndoon wër ñuy jaay mburu poids bi nga wax da nga jënd ci cinq 6 sites yu boo ko pesé doom sax presque la moitié ngay am c'est la réalité donc aussi bu ñu leen waxee ne leen lii poids bi ñu la toll ngeen d'accord ci prix bi loolu yaakaar naa ñi yor affaire consommation yàgg nañ ko kaas ci télévision yëpp que poids bi ñuy bi ñu wax ne ñoom la ñuy jox ba tax ñu bañ bañ sur la base de ça ñu may dégg ñu may dégg ak ñoom poids bi ñuy jox nit ñi xam nga kenn du ko mën a peser chaque matin baaxul loolu c'est que aussi service de l'État ñoo war a contrôler boulanger yi def yu liggéey je pense que li ci en gros li ci ëpp lépp ki ci gën a perte mooy le consommateur hmm. te nag le consommateur moo la gën a xool intérêt te puis presque les kiosques amatul léegi pratiquement bu njëkk dinaa ne boo ubbi boulangerie hmm. nga am nombre de kiosques yoo xam da ko war a am bu jëkk loolu la woon ah, qu'est-ce que da ngaa romb ci mbedd mi ñu ñu def boulangerie nangam yaa ngi ràpp loolu wëral Dakar est-ce ko gisati ñoom aussi dara boo ko bëggee kaas da ngay respecté yow tim say say mbir hmm. boo ko kaasee ni ñu mën la déglu très bien merci merci Papis combien coûte la baguette de pain laajoon nañu ko fi ay autorité autorité française la ah man damay <laughs> man damay commencer déjà c'est important su point. Birima Bakhit ñaata lay jël. xaw ma ko 150 la je crois. man du ma réglé sama kër nag. doo doo réglé détail naa sama jabar. man man du ma ñëw si affaire booba. booba la de. booba mi xam ne amul jaar li jëral moom moom doo boobu heure bu xëy ma ngeen moom man nag jëndal ma sax dañ may gën a indi ñoo xam ne nii. bilaay bu ma la waxee fi ma gis jabaru bureau muy jënd mburu may maa ko xam. foofu de baguette du fa jaar moins de 1000 francs. waaye li nga wax. lu leer ah, laa lay man man lu baax lay la. yor ma keesu buur de. Papis yor ma dëkk de. Papis vas ñaari ñaari aspect rapidement. Hmm. <laughs> c'est que man damay euh, damay rebondir déjà ci parce que euh, prix prix baguette bi. Hmm. xam débat bu yàgg la dafa xóot dafa c'est extrêmement compliqué je hmm. pense que man amuma ci trop ay ay proposition damay observer xaar mu waaj mu wàññeeku en tant que consommateur su ma ko amee à cent francs damay damay applaudir parce que man Sénégalais laa lu mu gën a yomb man hmm. euh, foofu laa bëggee taxaw mais dama bëgg rebondir ci li président wax léegi ci euh, chiffre bi hmm. parce que boo amee dans un pays nga am trois trente mille personnes ñi liggéey directement ak quarante mille si les chiffres sont exacts indirectement ci secteur boobu 2 à 3 pour cent du PIB secteur euh, secondaire. dafay nekk en contradiction ak par exemple lu ma wax ne ñoom ñoo war a structuré wu. moi je crois que c' à l' état boo amee secteur bu important wi noonu ñoom ñu nekk létat état doit leur imposer de se formaliser ñoom ba ñu nekk ci informel bi. Hmm. c' est pas à eux. yaa ngi may dégg nekk ci secteur bu mu toll nii ak milliards ñuy généré ak lu mu amee importance que ñoom doxal seen bopp di. non peut-être organisation d'abord interne. non non non c'est que je veux dire par que. Mm-hmm. ça que y a soixante dix mille personnes sénégalais yu dund directement ci secteur u euh, pain bi. Mm-hmm. non loolu état bi ñoom ku si xëy si da si war a fekk lu ñu légiférer nga topp ko wala nga bañ ko topp mais moom benn fil conducteur boo xamante ne. Mm-hmm. dañ naan c'est ça qui organise ki organise le secteur dans sa globalité. man foofu laay waxee en tant que. engagement ak responsabilité état. benn affaire mooy c'est vrai que am na problème ne euh, xottu la c'est relatif xëy na am na ñoo xam ne ay génn yoo xamante ne nu ma coursia yooyu ak légèreté bi xëy na moo leen neex mhm. mais man damay glisser si dans la profondeur parce que dama euh, bi nga ma waxee sànq ne on va traiter de la question mhm. ma xalaat si euh, li kii di wax qualité pain bi par exemple xam nga il y a quelque un an et quelque dañu lancé benn politique hein, autosuffisance alimentaire en riz mais gis nañ aujourd'hui l'effet que cela fait ci biir Sénégal léegi sax dañu am ñaari clan ah am na ñoo xam dañuy wax non man léegi euh, ceebu vallée bi la préféré mm, ñu ne Pakistan bi mm. loolu lu muy tekki moom mooy dafa am une volonté étatique ñu imposer ko en fait pas imposer mais proposer ko aux Sénégalais def si li ñu si war a def que les gens s'ouvrent maintenant à, à cette consommation mmh. je veux en venir à ceci qualité mburu boobu bu fënax boobu pourquoi du ñu def ñoom ñu ngi koy développer en céréales local mm. def en sorte que ñu consommer ko parce que da nga koy jaay c'est un projet. loolu xewoon na fi xewoon na fi xewoon na fi mais dafa taxaw donc je veux par là. au-delà de l'histoire du prix. ay xottu laak xottu dafa cher dañu wàññi taxi beeg TVA ay machin bi on peut promouvoir suñu mburu boo xamante ne ñun ñooy nekk à la base. dépendance farine boobu comme ni ñu dépendre woon si ay Taïwan ay Chine ay je ne ah sais Pakistan l'histoire du riz. Ah, ah. mais je crois que il est temps aujourd'hui que ñu 8 millions de baguettes ça va donc naa sax même président Macky Sall bu xëy il faut mu laal pain bi. Hmm. <laughs> donc ñun ñëpp on mange du pain. Hmm. fondamentalement je pense que man la réflexion doit s'accentuer autour de cela. ni ñu defee en sorte que Sénégalais yi xam ne am na beneen ceeb bu ñu mën a lekk fii ñu xam ne am nañu lu ñu war a produire si wàllu euh, euh, céréal hmm. comme pour mun defar pain yu de qualité. et certainement prix bi dina gën yomb. et puis bon tout le monde va se retrouver dans dans l'époque du pain riche là bien. waaw mais mooy comme ni ma doon tooñ hmm. sama sama waa ji biir ma rek xam nga euh, je pense que ceeb bu baax ak mburu bu baax jaral na Sénégalais mu dox ay kilomètres dem wuti ko hmm. te ñun ñaar ñun ñii chaque fois damay wax ñun on est sant yàlla privilé privilégié. Hmm. ba yaa birima quoi. non non nañu waxante xam nga fi ngi nii. non en fait je veux dire. oui. ku euh, euh, ma xanaa yaa ko fay. déet fay mu fay yaa ma yaa ko fay. Ah. Ah. waxal. waaw sa ñaareel bi sax. Birima Ndiaye. bàyyi la wax xadi xam na ne waxoo dëgg. ñaareel la waxal wax kii àggali. <laughs> ah déet waaw. waaw vraiment. saa yi ci xool ngir. je je disais que en fait euh, pour man euh, damay damay tout temps rek lié mburum mburum yi ak ak métier même pâtissier ak pâtisserie. Mm. c'est-à-dire euh, loolu foofu dafay wane aussi li Sénégalais yi attaché aussi mburu mais mburu aussi c'est une pour man c'est grande famille. il faut pas <clears throat> mu mu nekk si baguette bi rek quoi parce que farine li ciy defar bëri na. Mm. je pense que c' est comme dans le si transport en en commun yi <clears throat> Sénégal fii boo génnee gis ñaata car rapide ñooy dem ak ñëw. Mm. ñaata nit ñooy lekk mburu mais on n'est pas parvenu à en faire loo xam ne c' est un c' est industrie. <clears throat> parce que boo mburu dafa dafa prix bi dafa yomb. mais man ci li président bi di wax yëpp li may xalaat yëpp moom mooy est-ce que quand même on parvenu en faire benn industrie boo xam ne dafay impacter économiquement si nit yi mais aussi même si seen wér-gu-yaram. Hmm. parce que du affaire poids affaire contenu la aussi quoi parce que lu nit jël bu dee huit millions de baguettes la ñu defar lu nit jël di ko def si biir gémmiñam rek. li mu représenté dafa bëri. loolu mooy wan que ni c'est-à-dire que il faut pas ñu jël débat bi ñu teg ko ci mbirum prix farine bi na wàññeeku wala na boo seetee ba seet c'est un terrain qu'on a perdu en terme de pâtisserie. Mm. boo xoolee fépp fu am pâtisserie bu baax c'est pas de sénégalais. tigi tigi. c'est quoi mm. la formation. lakk mburu mm. c'est pas une formation. bu la tey euh, une semaine deux semaines nga mun lakk mburu mais lan mooy métier pâtissier. lu si ñi nga xam ne ñooy liggéey bu di parce que di liggéey fenn pendant dix ans quinze ans mën lakk mburu kese c'est un problème. Hmm. mooy dérivé yi ci war a am. Hmm, hmm. loolu moom mooy peut-être jox alternative consommateur bi sax muy utiliser leneen. cest à di que buñ ko émalee si ok nañu wàññi prix bi la vie est belle c'est bon. non nous les boo duggee si quartier populaire yi. et tout ça mais nit ñi accès mburu rek la ñu am bu ñu duggee si si boulangerie bi jaay ma mburu lañu ñu mais amul benn diversité si li ñuy lekk. c'est-à-dire te loolu pour man loolu échec non seulement suñu politique yi la mais échec aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci corps de métier boobu c'est important il faut que ñu aussi ñu pa ñu bañ li nga xam ne moom mooy mooy suñu suñu mooy vecteur bi mooy dawal affaire yi ci suñu économie yi nga xam ne ñun ñoo ko war a téye développé ba Sénégal nekk un pays reconnu si mm. mbirum pâtisserie boo demee France <coughs> pâtisserie li muy représenté foofu les plus grands chefs. tubaab yee mën a mburu. non non non seulement dañu mburu mburu mu ne. non non ah, attends rek <clears throat> xam nga nous. Hmm. on est quand même quoi qu'on puisse dire CFA la ñu utiliser. on est une colonie française. Hmm. l'influence de la France. wallaay wallaay bi mu nekk ci suñu réew yi c'est réel. ñu ngi ciy bëgg génn sax d'ailleurs ci lu bari te mënuñu ko. mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. mën nañoo influencer ci mburu mi nag. non non non mais mën nañ ko trop non non ah, non. c'est vrai France mburu. non non non non non ce que ce que je veux dire moom mooy que hmm. industrie. boo xam ne échec la sur toute la ligne. Mm. parce que c'est pas moom comme ni ma waxee c'est pas un problème de mburu. Mm. le sénégalais lam daal on doit lui proposer beaucoup plus que sax mm. mais am na ñoo xam ne mais peut-être que année bi yëpp du ñu lekk croissant. gis ko. non parce que boo am nañu. dafay seet si ñoom sax non. maa ngi défier ah ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi nekk ci boulangerie de quartier yi. nga defar loo leen croissant ñu ko defar. duñ ñu doy na borom xel. tout le business est récupéré par des non-sénégalais qui en font une industrie. à la chaîne à la chaîne. Hmm. <clears throat> donc pour man bu ñu concentré woon dëggantaan ci li ñu war a def du ñu fi nekk di attardé wu ci benn prix bu ñu yokk dix mille francs euh, dix francs wala cinq francs donc pour man il faut que ñu jël li nga xam ne moom mooy seen boo demee ci réew réew bu ne ak particularité am ci wàllu lekk. nga dem ci réew moo xam ne wóor na ni sénégalais bu bu yeewoo. Hmm. mburu lay lekk. temps wu koor gi temps wu màggal gi temps wu cant yi lépp pain dafa nekk benn dénominateur commun. Hmm. mais ngal la waay mais commençons à réfléchir si nan lañ koy defee benn industrie boo xam ne à la limite mën nañ ko sax exporter da ngay dem te li gën a kii mooy que pour man mburu moo tax ñun waruñu sax kaas parce que loo gën a ñàkk mu gën a metti si yow. da ngay <laughs> Sénégal da ngay gis koo xam ne day jógee Dakar parce que ñun dañuy foog ni le monde hmm. s'arrête à Dakar da ngay gis ñoo xam ne dañuy jóge fii di jël euh, transport en commun di dem seen dëkk tabaski wala korité jël mburu yoo xam ne ñaata at lañ fi nekk hmm. nga koy gis ay mburu yu yàgg yoo xam ne danga naan nan la ko nit mën a lekkee ce qui veut dire que sur toute la ligne du début à la fin il faut pas que ñu ñu hmm. ñu aussi ñu absorber ñu ci ay détails pour man la la vraie bataille hmm. c'est pas cette bataille là c'est une industrie ji nga ji nga ji nga xalifa dama lay benn affaire muy si wàllu musique muy si wàllu bëre muy si wàllu lépp li nga xam ne discipline la loo xam ne day génne koom-koom mm. lépp luñ ciy def te jëluñu ko ñu yóbbu ko si benn niveau boo xam ne mën na nekk une vraie industrie je pense que taxal ma dimbali la parce que maire Ndiir la dégg taxal ma dimbali la wan wan ka secteur bi doxatul ay jafe-jafe rek moo ci am doon lu El Hadj Ndiaye nemmeeku jamono ji au temps daanal la jox ay cent sac ngay liggéey di fay léegi borom fëriñ borom fëriñ si boppam teggi texte la ñuy def boo leen joxul xaalis duñ la jox fëriñ parce que ñoom ci boppam xam nañ instant bi boulangerie boulangerie yi la ñuy jànkoonteel koo ci lebal sans sac sa xaalis moo fay dig parce que du am lu la fayee doon boulanger li ko dalee atum 1998 El Hadj ne jamono ji nag jafe na lool ngir lam cay am mu mun cee faj ay soxlaam. damay man damay toog sama gàll ba si yàgg maanaam man lii dem dafi mene baru maso sax ñu wàcc ma wàcc ñu fay ma samay 3000 wala samay 2500 moo ma gën a la muy dépensé ngir defar mburu mi bëri na rawatina njëgu farine bi nee na. 14000 la doon jar léegi 18000 ci weeru koor bi léegi 18000 lañ koy jëndee. produit bi ñëw levure bi ñëw glace bi ñëw te boulangerie instant yi dafa bëri ku doon lakk quinze sacs instant yi ay huit sacs ngay lakk ay sept sacs même ouvrier yi ci boobam sax da am problème mu fay leen. mburu bi war nañ ci defar ba mu normal. lan moo ci normalul. ci normalul am nañu produit yi ñu ci def. comme bu yëkkati mburu mi ba mu ëpp. te fekkee mburu bi ay xob kese la. lu ñu defar espaguette ak sauce pompiteer moom danaa ci lekk. waaw tey nañu xool euh, mburu bi nu mu gën a setee quoi parce que xam nga defar bi affaire yooyu noonu comme si biiru doomu aadama la jëm. ndaw li dañuy xamal ni jafe na ko mu toog bis lekkul mburu jàpp ni sax sénégalais yu bëri ni moom la ñu mel. parce que man su ma yeewoo suma ma xel si mburu lay nekk xam mburu mi laay sentir quoi waaw waaw. di ko wëri. waaw ko mais su mburu ñàkkee nag moom du ma jaral yenn kii yi quoi du ma jaral yenn coono yi ak yu mel noonu xama di laaj kilifa yi nag mu xoolaat bu baax rawatina lu jëm ci njëgu saaku fariñ bi ndax cher na. ñu wàññil ñu fariñ bi te yàlla tax. ah. ñu ko mënee def euh, quatorze mille quinze mille baax na. secteur boulangerie ami jafe-jafe boulanger yi nag bëgg mu dox comme ni mu doon amee moo xam boulanger yi comme consommateurs yi. ku ci nekk nag bëgg na ci jëlee loo xam ne nii dina ko neex. professeur alors. waaw euh, da nga may baal rek. Euh, mooy euh, kii bi nga doon tudd léegi man ak Papis ñu doon waxtaan wax dëgg yàlla mënuñ ci romb muy Saint-Louis mm. di suñu waaju baax ah, man daf ma marqué particulièrement mm. euh, ab taalibe la mm. et bu fekkoon am na école bu ñuy jàngale la fidélité en amitié dama naan ci Saint-Louis lañ koy jàngale ah, donc wax dëgg yàlla yar teggin dal tey ñu koy masaw te ñun ñoo ko bokk te dañ ko yéex a yëg waaye ñun ñëpp nañ def ay jéego dem fekke ko jaale ko di ko ñaanal waajuram bu wàcc bon loolu nag affaire yi problématique yi bi ngeen soulevé tey wax dëgg yàlla boo xëy na du ma duggandi trop ci détail yu mburu meeg prix beeg. amul lu attiré attention si mhm. si sujet bi. Mhm. sujet bi ñu gis léegi amul lu ñaar ñaar nañu sama attention. conditions yi ñuy liggéeyee dafa salté déjà. Mhm. mooy li biir ma doon wax léegi boo ko xoolee lii nii nii. wax dëgg yàlla. liiruwul bërëb boo xam ne war nañ faa jëlee lu ñuy def ci biir li ma gis nii loolu ma njëkk a mm. deuxième bi mooy li ngeen wax déjà mburu boo gisee nam koy laalee nii mburu moom jeex na fi bu yàgg na fi bu yàgg mm. boo xam ne moom xam na ko duñ ko tudd ah bu weeru koor jotee da ngay na mais bokkul ak boobu de waaw waaw boobu ah xëy na xëy na baax na waaw. waaw ah moi j'adore ça. waaw ah bu ñuy lakkee ban c'est bien ça. moom xam na fi may fi may wax. taw gën a ginnaaw c'est bien yooyu. Euh, société commerciale ñemewuñ ko tudd waxuñ droit tudd ab bërëb la am na xeetu mburu bu ñuy defal bu waaw bu koor gi jotee da ngay gis gars yi rang ko parce que foofa mburu mi dafay la delloo ca mburu nam doon mel mu diis xaw am ñam ci biir hmm. parce ñii li ñuy jaay waaw da gis gars yi rang nga taxaw mu mu non non non déggu man la da ngay man kii xam na ma yàlla xam na ne mburu damay am problème pour mu dem waaw maanaam lekk benn pomme banaan naan ndox ba ma gën a mburu je <laughs> comprendre daf lay far fekk xaw ma ndax am na en ville mu dee banlieue fu may dëkk bu ñooñu ñooñu dañ leen di rang mais ay 14 heures 15 heures mais c'est une chaîne am na fépp may après bi ñoom moom lañ gënal ça veut dire que mburu moom jeex na fi hmm. euh, na ñu ngi kaas bi war na leen defal mais déjà ñoom am na àq boo xam ne gàddul nañ ko dañ ko war a wàcceeg ñun ba pare soo kaas la ñuy kaas hmm. àq ba mooy le consommateur sénégalais moyen xaw ma mburu yi kii de man géejawaay lay yeewoo <laughs> xeetu mburu yooya may gis ñuy jaay foofa wax dëgg yàlla du mburu hmm. ce n'est rien du tout à la limite du poison parce que levure yi kese la boo xoolee la cay farine wax dëgg yàlla der naw fa hmm. levure la ay produits chimiques boo defee nii ubbi ko doo ca gis dara pour nga gis ñuuxit sax problème la hmm. kon en tant que état wàccoog ñoom li mu leen yoral wax dëgg yàlla ñoom nañu wàccoog askan wi li nga xam ne ñoom yoon mooy un pain de qualité léeg li ci des bu fekkee ay affaire u la xaw man du ma dugg ci détail dama koy tënk rek ci fi may faral di wax te bu ba xaw ko junju léegi mooy maanaam il faudrait ma nuyu Charles borom patriotisme ak indépendance économique <laughs> ça veut dire que liy indi problème bi yëpp yëpp yëpp lan la hmm. la ñu wàcc suñu yoon mais kan moo mën a fexe ba yow amul lenn ci li ngay lekk mu doon ne lépp ci réew mi nga koy jëlee Sénégal li ngeen lim yëpp mburu suukar ceeb diwlin saabu meew amul benn ci booba boo naan fii de réew mii lañ koy defaree gàncax gi. Mm. réew mii lañ koy récolté réew mii lañ koy transformé réew mii lañ koy lekk mm. amul tigi tigi problème bu farine bi li koy régler xam ngeen ko. Mm. parce que problème mu mburu mooy problème bu farine. état bi def na prix nii état def nii lu ko waral ci ëpp dañ koy jëlee bitim réew di ko indi fii. bu fekkee li ñuy jëlee bitim réew di ko indi fii teg ci ay taxes teg ci liñ ci war a teg mu jël ci chaîne ba ba yegg si TV ak ñoom seen foog mburu mu am nu war a demee. donc question bi lan la dellu si waat ci fondamental boobu nga xam ne élémentaire mooy li ngay lekk. fexeel bo la ca ëpp boobu mm, mu doon loo xam ne yow yaa koy béyee mm, tigi duguma fi waxoon naa la fi sëñ Saliou waroon na yoon ne bay dundee mm. waxoon naa la fi ne sa wërgu yaram sax mu ngi aaju dafa lënkaloo ak li ngay lekk li ngay naan mu doon li nga xam ne mooy li la wër gàncax gi dafay war a mën a nekk ci yow newoon naa la mënoo nekk fii Sénégal juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee fi sa deret sax dafay jël ngelaw la nam fay doxee géej ga nam fa tëddee lu nekk hmm. nam fa tëddee cycle boobu dafay incarné ci yow bu fekkee yaa ngi koy jële ji Thaïlande hmm. yaa ngi koy jëlee ji Pérou mënoo wër mënoo am lu baax kon dëgg bi xam nga lan la hmm. waaja waxoon taalifkat ba ma bëgg lool te di ziar Idrissa euh, muy Khalil Gibran mu ne pitié pour une nation qui mange un pain dont il n'a pas récolter la graine. Mm. Pitié pour une nation qui porte des vêtements dont ils n'ont pas tissé ces vêtements eux-mêmes. Mm, mm, Donc ça veut dire quoi? dellu si di xool problématique bi autour ba farine bi seer na waaye nan la ñuy fexee ba farine njomb hmm. fexe ba farine njomb mooy céréale locale yi fi nekk nii nga xam ne suuf si nangu na hmm. waaye ay la yëwoon nañ ko béy hmm. defaree ko fii récupérer ko fii kon yaakaar ne prix farine ba dina wàññeeku ah euh, croissant yi muy wax ñëpp ñun ñi nga xam ne duñ ci barkeelu ñu mën cee barkeelu bu ko defee réew mi gën a naat je crois que <laughs> problème de fond balaa may joxaat euh, gay mu réagir plateau bi dafa am ab mbayeen mais du lool sax moo ko fa indi waaye madame mbay comme balaa ñu ñëw si li fa indi loo xam si mburu mi waa Khalifa maa ngi leen di nuyu vraiment di leen sant di leen remercier aussi ci hmm. invitation bi di sant yàlla vraiment participer li seen yëf la yéen a moom di waaw xam nañ ko mais jot ci ma buñ ko yombale bu ñu amee kuñ ko yombala dañ lay sant ku santul yàlla ku santul nit doo sant keneen donc il faut ñu remercier leen bon pour mburu mi li professeur wax foofu laay ñëwee. Hmm. parce que man je pense que déjà imagine gis nii sama mburu aussi ku koy joxe jëlee ko sa mèche gauche doon rek du teggin. Hmm. ab càmmiñ càmmiñ hmm. da ngay téye jekkul parce que parce que dugub la dañ ko war a wormaal beneen bi mooy boulanger yi dañoo dàqante mburu man fa ko dëkk am na boulanger boo xam ñëpp fa la ñuy jënde parce que moo ëpp hygiène te moo dàq mburu am boulanger yoo xamante ni seen mburu neexul parce que ñoom li leen intéressé c'est l'argent c'est pas la qualité te la qualité donc qualité bi daf ci am solo ak ak hygiène bi. pour bon kan la ñuy kaas nag moom pratiquement affaire yi moom ku nekk ak la la kii maîtriser ma ko d'autre. très bien mais qualité bi daal vraiment ak mm. hygiène bi ñun. très bien yi moom. lu ñu sabablu la am <laughs> alors Gaye président. mais merci je pense que effectivement c'est le Sénégalais commun qui parle parce que liñ gis la. Mm. métier bi boo ma jëlee sama exemple je suis dans depuis 30 ans nee naa la sànq. que c'est un secteur important c'est-à-dire que état dañu ancré parce que boo sottee mburu c'est le deuxième poste de dépense des ménages dans les villes mburu importance bi mu am mooy dañ ko war a organiser loolu waral ñu demander cette organisation la def ay thèmes de référence pour que les ouvertures de boulangerie soient organisées que comment ouvrir une boulangerie comment contrôler l'hygiène pour ouvrir une boulangerie quelle est la démarche à waaw qu'est-ce que tu dois loolu yëpp ñu ngi si biir. oui mais ma ma expliquer parce que je dois répondre quand même. waaw non bi kay moom si jaaxal. ah d'accord pour wane ne rek. naka ngay ubbee fuur naka ngay defee. yooyu yëpp dafa nekk système de référence. Hmm. ñu ni kon fii Sénégal y a tellement de lois et décrets. Hmm. yu nekk si mburu mi benn appliqué wuñ si. ñu ni kon nañ dem assise ñu def application yooyu décret 102 2004 79 165. Euh, tout trop y' a beaucoup de décrets. chaque jour Papis wax ko. cadre cadre bépp a ngi fii. léegi nag mais y' a pas d' application. léegi nag amul dara lu fi manqué. aussi nag il faut ñu comprendre. nee naa le pain est un produit social. maanaam produit boo xam ne nguur bi da ko ŋànk. ancré si bopp nit ñi ni mburu li la war a jar mais ñun boulanger yi dañ ko comprendre fédération bi moo tax ñu ngi fi débat fii ja ci euh, li si li si penc bi ba ñu waxee mburu mi cent quatre-vingt-dix grammes loolu mooy temps wu colons yi loolu mooy mburu bi gën a yomb le poids du pain c'est très important 900 grammes lañ jógee di wàcc wàcc ba 210 grammes mais quand avec de petits poids là naka lay boulanger yi defaree mburu baax. il faut que les choses soient parce que état bi ce qui l'intéressait c'est de dire à la population yu wax askan bi njëg li faleer la mais njëgu mburu mburu amul njëg boo demee si four mën nga am mburu fukki dërëm mën nga am mburu 100 francs nga am mburu. deux 200 man sama four mburu 200 lay gën a jaay parce que population bi loolu lañ bëgg. kon say mburu baax na. non mais non c'est le portion de poids. Hmm. mieux encore problème bi mooy il faut ngeen comprendre hmm. bi yow nga ni boulanger bi defal mburu 190 grammes mu jógee si 210 grammes dem 180 grammes xam nga loo ko yàqal danga nga ay charge su doon def benn saagu farine di ko lakk si 20 minutes si ñaari chariot mu def ko ko vingt fois 20. mais da nga koy yokkaat benn vingt minutes mu yokk gasoil yokk courant yokk temps te pourtant lu muy gagné du amati. Hmm. tout ça c' est des problèmes techniques moo tax boobu askan bi dañu war a xam ne mburu amul njëkk mburu poids lañ koy jaay mais France mburu lu fa jar quatre vingt centimes un euro pain de qualité. ça dépend si xeetu mburu hmm. kii xam na si dara. Sénégal hmm, ñun. dans toute la Afrique de l' Ouest ba si ba si xam nañ ñun. boulanger sénégalais yi lu ñu mën. est-ce que xam nga nekk nañ champion d'Afrique en boulangerie dem Paris. huitième mondial oui. mondial huitième Sénégal tey ñu on est cinquième mondial te feeñul si si kii justement. justement formation bi moo tax il faut ngeen comprendre que mburu du levure mais yow. mburu du lëf de. xam nga mburu mi. profane bay wax rek voilà loolu la. dañuy jaaxal ni mburu mi da ngay problème bi mooy. li muy béykat nawet moo euh, euh, da ngay ah, mooy euh, la mooy fermenté noonu. mburu aar la. la muy fermenté farine bi. mburu ñun boo gisee. justement problème bi am aujourd'hui mooy. kenn formé ah. amul éco formation. waaw waaw dañuy lakk mburu nit ñi dañu ñëw rek dugg ñu mburu mu baax rek waaw nit ñi nit ñi dañu ñëw rek dugg lakk génn yaakaar ne mën nañ mburu kenn mënu si loolu moo waral qualité bi di am problème mooy problème formation justement parce que nit ñi parce que mburu attention en France c'est sept ans c'est sept ans le CAP c'est neuf c'est c'est c'est un an. non la France prend le pain au sérieux. ñun tamit justement waa léegi fa jëm nag ñun. waaw léegi nag ñun nag en tant que fédération des boulangers on cette vision. ñu ni kon dañoo bëgg nit ñi di formé wu pour ñu am qualité bu yaa ngi wax benn kii mais mburu temps bi ngay def fermentation bu ëppee mburu mi day dafay funki di funki di funki apport nutritionnel boobu day dem. waaw ah, mooy li profond bu demee bi waaw. waaw hmm. mais loolu lan la am na ñoo xam ne si askan bi xam nga loolu intéressé. Hmm. dañu yore famille mburu mi na gudd. rëy. <laughs> pour ñu mën ko distribuer en quatre parties. attention loolu moo ëpp si si yenn banques yi am na ñoo xam ne ah dañuy liggéey seen liggéey bi yëpp jaay ko si fii dépôt bi defal mburu respecter temps de fermentation bi par exemple su dee une la mais de justement justement moo tax li ma la wax c'est-à-dire que moo tax ñu ne cet enseignement là boobu la ñu bëgg a wax pour wax ni escale bi état bi suñu njëg mburu amul njëg il faut que ñu gëmloo askan bi nii poids la war a bàyyi askan bi boo duggee si boulangerie nga am plus de thématique parce que yow. kon da bëgg da wax ni en gros da nga wax ni am na am na boulanger yi. poissonné mooy la non. ah ñu. jaay luñ bëgg. voilà dégg nga ma ne. Ah, loolu la mënul ne loolu bëgg waaw non non du ne. loolu bëgg a actuellement nii dañoo ni 1 gramme 0,78 francs pas ñu ni nag léegi baguette de référence dañ ko tënk si 150 francs 190 grammes loolu la ñu wax nit ñi léeg-léeg dañ ni loolu moo war a dañ si ça en pour que yow tey bu la neexee nga def poids wu 210 grammes yokk poids bi jaay ko 175 pour que yokkat poids bi 250 grammes jaay ko 200 francs. boobaa gis ko ko ko tey même poids jaay ko 200. mais loolu nag su suñu hmm. attention il faut ah, ma rappel na benn information attention mais ma déedéet pour boo ko defee bu ñu defoon loolu musiba am ci réew. déedéet déedéet attention nag mooy gën a sonn. attention nag gis nga information bu nga am ko. waaw tous les jours contrôle économique ñu ngi si boulanger yi di contrôler poids yi di leen di leen jox ay ay man loolu ñu ngi koy def léegi nag loolu boulanger bu ko dul def mais c'est que problème bi si poids bi la day nit ñi dañuy yaakaar ne poids bi moo rëy poids bi rëyul euh, pour wax leen rek ni si céréales locales yi donc moo si sori ñun. luñ gëm la ñu ngi koy doxal donc volonté politique bi des na mais nag pour information euh, chaîne de valeur la yaa ngi wax ñu dundee mbay mais actuellement nii prix dugub bi moo gën a cher prix blé bi c'est absurde mm. loolu mooy wane ni y problème mbay may des rek. donc xam nga loolu donc loolu si. Mm. bu bari woon yomb de si la production amoon na mbir ma mbir ma il faut que. ma tontu ko foofu. Euh, dafa am lu ñuy wax surproduction. farine bi actuellement nii surproduction moo waral surproduction du pain moo waral ngay gis ñu jël camion mburu def si mburu yoo xam ni yàgg na nekk invendu problème d'hygiène boobu kële loolu ñun suñu rôle la ñun pour régler problème boobu mënuñu ko loolu rôle état moo war a xam ne lii loolu mi ngi lor askan bi mu arrêté ko mais ñun dañu conseiller ay boulangeries yu bëri di vers la vente du pain dans la boutique pour mën a améliorer qualité pain bi d' ailleurs moo tax ñu ni bu ñu appliquer décret 102 2004 bi dafay générer lu bëri yow di nga mën a am pain de qualité di nga mën a respecter temps de fermentation di nga mën jox pain bu très de qualité voilà voilà c'est-à-dire en seen problème est-ce que bi la wala. bi la wala wala borom doole yiy dugal farine bi. non du question borom doole y a des minoteries dañuy jaay farine. oui n'est-ce pas y a des yu koy jënd liggéey. léegi nag dafa am anarchie suñu secteur bi. ñu ni loolu dafa war a dañ ku waaye xëy yaa ngi wax benn gis nga place bi mais ñëw rek benn place bu day nii ubbi boulangerie loolu jàdd na. saako yeeg condition yooyu cent mètres carrés même pas cinquante mètres carrés nga ëpp ëpp am na mais loolu jàdd na taxi yaa ngi fi. mais mais mais man man j'ai une question question bi ma am. Hmm. mooy fédération bi ngeen wax. xam nga xam nga Sénégal moom boo gisee gars yi di kaas eh, muy transport beeg une fois de plus ak yooyu yëpp mooy prix yokku na. mais loolu mooy motivation bi parce que li ma comprendre mooy que motivation wu mouvement bi ngeen bëgg a créer tout ça c'est parce que prix farine bi dafa yokk franchement pour diir vrai après nag pour rafetal ko woy yeneen yeneen yeneen aspect yi dugg si mais aujourd'hui pour man am na loo xam ne yéen en tant que fédération man j'aime bien nit bu kaas ne par exemple prix bi dafa chair mais parallèlement ma j'aimerais bien gis fédération bi jóg par exemple génne ay nit yoo xam ne dañu comme ni ngay wax ni ubbi benn boulangerie te nekkul ci. Euh, norme norme yi ba pare yéen seen bopp ngeen combattre ko ñu gis que ni vraiment vous vous aussi de de xam nga nit ñi quoi mu bañ a nekk affaire de d' argent. parce que est ce que les gens là ñi nga xam ne ñoom ñoo ubbi ces ces boulangeries la est-ce que ces gens-là font partie de votre. Mais justement, de votre non non non votre, de, fédération waaw ah, est-ce que dégg nañ leen aussi ngeen budul émission bi prétexte émission bi ak prix bi prix bi farine bi ñu yokk. ngeen jóg commencé xeex anarchie. dem def benn taxam nga parce que kii bu la kenn tooñee gars yi def euh, kii brassard rouge génn. takk mm. ay kii mais man j'aimerais bien voir par exemple une fédération qui vient devant benn boulangerie clandestine. taxaw ci buntu bi mais c'est pas normal ñu gis que ni vraiment vous vous souciez aussi de bien-être nit ñi quoi man côté boobu laay waxee ñu ngi koy def ñu ni état ñun ñun dañoo bëgg ak ak yow organiser ay ay assises on alerte c'est-à-dire ñun ñëpp nekk ñu suñu membre mmh. Mmh. attention ñun suñu membre dañ leen di former dañ leen di dañ leen di dañ leen di jan leen voilà les conditions à faire mmh. moo tax ñun ñu demander l'application des lois sur l'hygiène tous donc ñun ñu ñu ñu ngi koy def donc loolu bu si am lu kii mais prix farine bi dañ ñun dañoo wax ni même farine bu jëloon 10 000 francs te organisé wuñu duñ dem te ñun aussi mënuñu organiser suñu bopp léegi nag dafa am gàngoor bu nekk gàngoor bu nekk si biir ma jox exemple ga boulangerie yi sonn yi nii c'est normal xamul daal dañu am dañu nekk en otage boo xam ne par rapport à la livraison prix du pain bi mi ngi jar fanweer n'est-ce pas mm. ngay wax comme ni man nga xam ne ñu ngi koy jëndee am na ñoo xam ne dañoo jaay directement cent cent cinquante francs mais boulanger bi bu ko jëlee di ko livrer jaaykat bi si boutique bi gañ vingt cinq francs ki koy pousse bi koy yóbbu jàng quinze francs boulanger bi gañee dix francs dix francs boobu charge yooyu mën na def charge am yëpp loolu mooy problème boulanger mu toll nii est-ce que vous comprenez voilà le problème en en gros léegi nag problème bi ko lu ko lu lu ko occulté loolu li ko occulté woon nag moo doon par rapport ak prix faible bi ñuy souffrir di dem ak yooyu léegi ñu ni kon jot na ñu def structuration bi appliquer loi décret yi arrêter immédiatement vente pain dans les boutiques non seulement il va régler le problème hygiène le les dans les dans dans dans les boutiques dana permettre que boulanger yi recruter waat des personnel pour la vente parce que sur place n'est-ce pas dana permettre nit ki am qualité pain bi ngeen bëgg nest pas di nga mën a def formation yooyu yëpp loolu il faut que ñu xam ne foofu lañ jëm. li tax dafa doon kees ko. mooy loolu bu ñu nee application. dëkk sans xam nga bu njëkk ma bu njëkk dañaa la boo ubbi boulangerie obli loolu mi da nga am temps de kiosque loolu yéen li am ci boutique yi yéen a créé indirectement pour fay créer a andi seen boutique non duñ feeñ sax yéen itam nag yéen ko ñuy jaay. mais képp laajal tey Sénégal yi wëral fii. justement ban kees m mburu nga gis mu fii mu am turu boulanger. mais léegi waa léegi est-ce que le boulanger mën na jël investir 3 millions. parce que dañ ni boulanger bu nekk war na am 9 à 10 kees si loi bi n'est-ce pas. boulanger bi investir 9 à 10 kees mu gis mënam yëpp di jaay mburu bi si boutique bi boutique kees kam kenn dem a dem a dem a dematu fa il a investi il a fait de l'argent moom dafa bëggoon ñu appliquer loi bi même du policier pour appliquer loolu. Ah, donc justement c'est-à-dire que il faut que ñu xam. ñu xam loolu loolu loolu nag léegi nag. loolu la fa lañ il faut que ñu xam léegi ñun ñun. il faut ñu tere yaay mi si biir léegi ñun lañ bëgg aujourd'hui mooy. ñu appliquer loolu. Ah que les ventes du pain soient faites dans les caisses. parce que dans les caisses la livraison. doit être fait par le boulanger. mu am mu am une traçabilité. parce que yow tey mën nga jënd mburu si boutique bi. doo xam ban four la jógee. mais mais mais beneen loolu affaire. beneen affaire dafa mooy moo tax ma ne la mburu bi. waaw comme 150 lay jar. on a tendance à tellement banaliser ça que pain la. voilà alors que ni caviar amee doole noonu la amee doole parce que gémmiñ ci biir lay mais xam nga lan moo lan moo lan moo mooy boo duggee si boutique bi. Mhm. à la limite la personne qui te vend le pain mën na jaay eau de javel avant. dëgg la xëcc saabu. tigi def lii c'est-à-dire que gisuloo benn boutiquier buy sol. gant dara cest à benn benn benn moment moom laa on se soucie pas de la nga xam ne moom mooy dugg si si surtout nag euh, baadoola bi. wax fa dëgg yàlla. ki ñu naan baadoola mooy que ki nga xam ne en tout cas. yorul yorul ki nga xam ne. loxoom jotul jotul jotul ginnaaw. loolu c' est un pour man problème yooyu man laay bëgg di dégg quoi ñu xam ni vraiment yéen vous vous souciez de. du consommateur voilà du consommateur quoi c'est-à-dire que comment comment il faut parce dafa am benn ci ay secteurs. muy ci transport bi muy y' a y' a des gens yoo xam ne dañu investir si ay car rapide muy daw pendant trente ans benn moment. investir tu leen vous ne faites que récolter amortir nañu oto ba amortir nañu boulangerie ba depuis vingt ans tabax états ci koñ bi ñu naan yàgg ngeen dem ci quartier yi dégg étage bi boulangerie bi ci suuf lañ ko tabax te xaalis bii bi ñuy liggéey ci boulangerie moo tabax étage bi parce que gars dañuy investir si benn affaire mu yem fa mm. après ngeen jël euh, pain bi jaay ko ci boutique bi jox ko boutique borom boutique bi moom ngi jaay cinquante de choses yoo xam ne ah, mais bu ah, fel pour doon fel ah, matt kii sax da fel sax da koy da koy da koy tibb dëgg la. buuba la Dakar balaa ngay dem Dakar dama bëgg a jox benn waaw xam nga boo gisee li fi gars yi wax yëpp li fi wax yëpp li président waxu léegi moo am solo c'est-à-dire foofu laay man foofu laay xëccaate un peu pour man dañu leen abandonné dañu leen bàyyi ak ñoom ñëpp parce que on parle de loi dans un pays bu loi amee ñii dem ba si yàgg bàyyi loi bi mais c'est à l'État de restituer la loi d'arbitrer waay. bi mooy. par rapport ak euh, sànq bu wax lu am solo mooy évolution moderniser le le secteur. Ah, mais dafa am si am benn aspect bu ndaw par exemple il l' exemple des euh, kii euh, ni ñu koy wax tey waat. Hmm? du ma si lekk bu waaye. croissant bi croissant. moom rek la bëgg. xam nga yow viennoiserie de façon globale mais hmm. <laughs> dama am lu ma seetlu loo xam ne Sénégal daf ko ci am ci wàllu expertise Sénégal hmm. nekk na huitième mondial. ci viennoiserie à Paris dans un concours mondial. cinquième cinquième nekk. mais un parmi parmi mais dafa gagné concours fédération bi ñoo ko fa yóbbu. ñoo ko fa yóbbu quoi ñoom non c'est dama bëgg wax ne am na ñi fi des baaxuñu. waaw <laughs> non non je veux dire. ñi ah, ñun de ñuy gis. xam nga ne am am huitième mondial. mais xaar non non je veux dire. mais Birima Birima Pape tàgguma la de. yàlla bu la yàlla doon dama ne am huitième mondial. cinquième mondial à Paris ah, cinquième cinquième mondial à Paris. Ah. ça ne veut rien dire boo ñëwee. mais c'est man dem naa Paris yàggul dara. Hmm. mais gis nga boo ñëwee ba di boo ñëwee ci gaar bi hmm. gare de Lyon nga ci gaar bi. Hmm. petit pain seen croissant yi. mënoo ko téye ne non vraiment Sénégal ça va pas. <laughs> ah oui mais mais mais je veux dire. yéen mais mais laisse-moi euh, bàyyi ma terminer. war nañ terminer. Eh, non non président bàyyi ma bàyyi ma terminer. c'est que mais muru ba ma juddoo ba léegi man. li ma mën a wax innovation benn xam nga ma jël ma exemple bi. Hmm. c'est pour dire encore une fois qu'il y a la volonté. il y a des gens qui sont passionnés ñoo xam ne bëgg métier donc état pour man moo abandonné gars yi nañ ñëwaat le truc. Hmm. et et bi on parle na koy reprendre nag. appliquer les textes appliquer les textes. très bien accompagner et puis gars yi hmm. exemple. dafa am boulangerie et il faut ñu ràññee loolu effectivement c'est le pain et la viennoiserie. Hmm. mais la pâtisserie mooy tout ce qui est crème. donc la plus boulangerie yu bëri yi nii boulangerie la ñu ubbi. Hmm. même sax notion wu am ñu bëri ñu yaakaar ni. Hmm. croissant c'est la pâtisserie. parce que am ñoo xam sax su suñu kii duñ ko def mais ñu dañu wax ni dañu bëgg a xam ne boulangerie c'est le pain viennoiserie ay brioche yëpp donc ñun loolu lañu jàng même si concours meilleur blanc bi ñu defoon c'est c'est dans cette optique là pour ñuy ràññee yenn éléments yooyu muy benn mais croissant trois cent et quelque la jël ak cinq cent francs mais ñun aussi askan bi seen poche bu m mënuñ jël croissant ku am problème mu imaginez un débat sur le prix du pain à cinquante cent cinquante francs est-ce que di nga mën débat wu prix trois cent cinquante francs mais c'est pas une raison pour ne pas le ah, faire mais non attention non non je veux dire dama ne nekk da ko dama ne population bi attention ku nekk da ko war a servir attention léegi nag ñun <laughs> danañ defar ay yenn façon croissant ak brèche yoo xam ni accessible na ak population bi. Ah, actuellement ah, ñu koy def c'est ce qu'il faudrait n'est-ce pas ak loolu la ñuy def. mais si banlieue bi di ngeen commencé gis. Hmm. Guédiawaye Pikine forme de nouvelle boulangerie yu ubbi. Hmm. yoo xam ne ils vendent uniquement dañuy jaay mburu uniquement seen boutique joxe qualité nit ñi di ko rang. Hmm. ba man ma ma leeral leen aussi benn affaire benn effet le si pas parce que nit ñi dañuy rang si benn euh, kii ne enseigne mu yàgg weeru koor bi ful yëpp la ñuy rang xam nga askan bi benn période la ñuy jël di ko di ko di ko ñëpp la bëgg a jël mburu mi. na ñu man week ah, dem rek dina baax. je suis désolé. te man week sama fu dañ dañ koy man dama lay non dama lay expliquer rek. xam naa dama ne la. foofa yéen da ngeen yaa ngi ci dama lay a wax. dama ne am na fii dama ne. sama fu tous les week dañ koy naan c'est pas question de dama ne ah yaay yow Villain dafa am looy def spécial moo tax ñu lay non non dama <laughs> ah, ne rek ci mbuur mu day sa fuura beeg rek ma nekk président kat ku ragul fuura. tàmbaale mu di mu di kenn laa wax. de. d'accord naa koor gi du fépp la ñuy rang. d'accord d'accord naa loolu beneen débat. léegi benn la ñuy rang. te boo boole leen euh, lu tax ñooy la. poids la am et c'est au même que les autres. 150 dama ne. en plus dama xamee mburu dama xamee mburu dama kaa tuddee mburu wala jaroo ko croustillant doit être kii ñi day génn ñaar si day génn. mais man d' accord naa ak. yooyu nag yooyu nag bu ngeen demee seen chaîne boobu amu leen ko fa. xam ngeen am lu design. attention. il faut ah, non attends mburu. président doguma la de président doguma la de. ñoo ko dàq mburu. président non président doguma la de. ki nga wax noonu mun na ñoo ko dàq. professeur noo ko dàqee mburu professeur président de. ci li président wax. <laughs> je suis. en tout cas ñu ngi leen di ran parfaitement en phase ak yow. pour man pour man mburu mooy yow neen. voilà <laughs> moo dàq. bu mooy mburu président bi mooy mburu sénégalais bi xam nga lan mooy mooy bi Lamine Samba di wax buy xawem xawem bi c'est ça buy xawem xawem bi c'est ça xalifa xam nga lan moo grave <laughs> si <laughs> wàllu mburu ñun ñun buróom eh, eh, eh, <laughs> ma ne mburu si lu ñu màgg man ñun on a benn am nañu amoon nañu benn façon bu spécial bu ñu def bu neexoon qui est très sénégalais bu njëkk non non non hmm. biri ma biri ma su ma waxee ñaari baat nga dagg ma wax kii bi si ma noppi day bi day ah, ah, am solo aujourd'hui ah, mais dama doon daaneel bàyyi ko mu daaneel s'il te plaît non nga wax ni c'est important parce que mburu bi hmm. sénégalais bi daf am nu mu ko daan kiiwee ñu ciy màgg di ci toll ba heure bi te loolu on l'a perdu je ne pense pas que fii professeur di wax hmm. genre mburu boobu neex na sax sénégalais bi c'est parce que tuuti dafa gën a diis tuuti rek peut-être mais je pense bu ñu boo leen concentré wu si mburu bi ni ngeen ko daan ni ngeen ko daan defee pour les sénégalais di toj noonu mu xaw a rafet noonu croustillant <laughs> noonu bu sénégalais boobu mais il faut ngeen def ci ay effort mu gën a set gën a diis tuuti mais yéen a mën gaa yi de. ñu ngi si justement yéen a leen mën justement. ñoom ñoo la bëgg leeral leeral. soo ba là pour se défendre maa bañ. may damay leeral ma non non par un souci d'équité mais ma mais ma may ma la parole man maa joxe exemple foofu bu ngeen taxawee décréter yéen ñii fii mais ñooña la ñuy def yéen li ngeen def moo ko gën je dis on est injuste parce qu'ils ils auraient pu scientifiquement montrer que la ñuy def moo gën dëgg la kay kon nañ bañ nañ bañ a lekkkatu a dugg ci nañ bañ a dugg ci moo gën dama lay wax la fay yóbbu sénégalais yi sénégalais fay yóbbu mooy lan lële bu ko defee nii xamtu ko bu génnee biir bi xurxuri mu mel ni lekkul dara parce que foofu la toll bu demee fële xaw ma baax na ni nga ko waxee xaw ma bon na mais mu ngi koy rang. mais dëgg dëgg la professeur parce que quelque part. ça li nga wax li nga wax moo am parce que. prime bi maintenant vous ne pouvez pas décréter que nous avons un meilleur père là-bas. l'autre père n'est pas bon. parce que prime bi fi ba fi tuddee ba fi tuddee boulangerie Khoule. ils sont pas là pour se euh, défendre mën naa tudd boulangerie Imam Assane Dir. ki nekk toog mu xulle dàq ma waaye déedéet dàq ko dàq ko waay non li ma bëgg leeral rek mooy léegi euh, eh, dama bëgg leeral aussi il faut que <laughs> fédération euh, des boulangers il faut ñu il faut ñu avancer tuuti li ma la bëgg laaj lu am importance la c' est le personnel parce que booy nekk ci boulangerie yi. duñ leen fay de ñaaree dañ leen jox euh, comme journée ñu jox leen par exemple ñetti ñetti téeméer ak ñaari kilo yu bëri bu ñu wàccee. dafa la ñoo finaan. ñetti téeméer bari na de. non non loolu mooy temps de traite. bu weeru koor jotee. parfois journée journée 1000 francs enfin nuitée mmh. quoi enfin nuitée. en tout cas journée guddi gi journée guddi bi. journée guddi bi il <laughs> <laughs> bëggee jël Euh, boulanger yu mauvais yi ba ko jëf ñi nga xam ne ñi ngi effort pour avancer. Ah. ça pose problème. aujourd'hui d'accord d'accord d'accord aujourd'hui laisse le finir. aujourd'hui dañu naan dañuy dem ay thèmes de référence. am na tamit hmm. yu ko si indi. on a tellement problème. aujourd'hui boulanger yu bëri ñu ngi tribunal comme yi nga wax ni ah effectivement mais ñun loolu lañu bëgg a dindi éradiquer ko n'est-ce pas. am na problème yooyu mais nag quand même du mais tribunal comment. non nu muy expliqué. parce que non ay am. mais hmm. xam nga versé non. loolu question mais am na surtout yoo xam ne ñu ngi nekk suñu mag du mii di wax ak yow. dama la damay am moratoire IPRES si gàttal damay toog am problème bañ a fay ñu ñëw dóor ma ma def moratoire loolu. c'est une entreprise loolu ñun loolu la ñuy def dañuy fay IPRES mais dañ koy dóor moratoire am problème caisse sociale ñëw dóor suñu kaw donc en ces problèmes là. Hmm. da ñëw jël sa ouvrier dafa am nombre d' yi ngay jël. ñii nga il faut nga jël ay journaliers loolu mënul ñàkk si boulangerie loi moo ñu ko may. dañu am sa registre journalier ñii da nga leen embauché mais ñee ñu ko embauché wuñ ko mais terme de référence la ñuy wax. d' ailleurs ñuy def la convention je parle sérieusement je sérieusement boulangerie ñaata nit nga fa embauché. dama ne boulangerie. à part le boulanger bi ngay jël. ñëpp journal yi di bindee. non non nekk. exploitation bi daal non non non non lu leer laa non dama lay expliquer. exploitation nag dañuy exploiter ces jeunes sénégalais loolu moo am.

mu am interprétation dama bëgg li nga xam ni dañu am boulanger dafa am catégorisation. Hmm. dafa am ñu mel nii am ñu mel nii am ñu mel nii. comme partout nest loolu affaire bi foofu la. léegi ñun nag actuellement nii dañu ci jafe-jafe xam kii ubbi na fi mu def crise mais nga xool ki sànq kii nii mu jël main gauche mais loolu quand même même ñun neexuñu am na loo xam ne gis naa ko tey gisu leen ko peut-être fii nii. jarul ma koy wax non jarul ma koy wax. Hmm. gis naa ko loo xam ne man bu ma ko defoon aussi du ma fa daa am nu ma koy. waxee. Hmm. donc yooyu la am ñun dañuy dem ay session même hygiénique dañuy def en hmm. formation en di jàng xale xale yi mais quand même étape par la. waa léegi kenn ko xam ni amul yenn mooy pour jàngale loolu dana mën a continuer di di investir encore sur sur ça. très bien li am solo mooy dañ nekk si crise il faut nga di mu am mauvaise interprétation. Hmm. justement ñun prix farine bi pour wax boobu ni prix farine fixé si uniquement. pari bi même bu jëloon tey dix mille. am ngeen action. te te non dama la expliqué mu clair dañu dañu boole ñaari. tey farine bu jëloon dix mille. te structuré ñu bëgguñu. dama bëgg mu clair. on verra bien dañu bëgg dañu bëgg mais président président dooguma la de. fi ñu lu baax la dooguma la de non dooguma la de. mais wax dëgg yàlla. dañu ko bëgg a organiser di la teg fii. di la professeur. di ko teg fii. prix farine bi non non 25 francs yi la jigéen mani déglu ma la lan la yow comprendre waa ji xoolal rek la ci bi livraison bi livraison bi non non non wax wax ko dëgg yàlla wax d'accord naa ah, xam nga dil bi xam wax naa la wax ji nee la boulangerie bi 10 ah. francs lay am boutique bi 25 francs kii pousse 15 francs 40 francs yéen a bëgg <laughs> loolu na yoon may nañu ko. bu ñu non non dafa am anarchie boo xam ne hmm. sincèrement dafa am anarchie boo xam ne. très bien loolu vraiment très bien dañul dañuy am vrai problème. très bien alors très bien alors alors merci donc ñu fàttali ne di ñu mën a déglu ci King FM pour ñi nga xam ni ñoo am ñoo nekkul ci télé wala ñoo nekk seen oto mën ngeen ñu saraan également sur Facebook page officielle TFM. Euh, point point TFM c'est comment TFM point sn c'est TFM jàkkaarloo bi de TFM en live mën ngeen ñu seetaan également bu dee seen smartphone jege na leen te télévision jegewul leen léegi le sens de ma question bi ma la posé woon léegi ni pour mhm. terminer yéen wax nguur gi nguur gi nguur gi mais ku nekk xam na ni farin bi dafa am feneen fu muy jóge dugg ci réew mi am ñu ko fii dugal ñoo xamante ni xëy na du leen arranger ñu promouvoir li ñuy bay ci réew mi ñu yombal ko pour ñu gën a mën a dunde li ñuy bayee fii ci réew mi loolu yéen doo leen ci wax am na ñu leen di owee ay lobby. waaw mën na am c'est-à-dire que. mën na am wala am na. non am na ah, effectivement certains yoo xam ne dañuy pousser. Hmm. pour que loolu am na. loolu am na mais mais loolu mënuñu fay nañu fi mu toll nii parce que mburu noo ko defar mburu boobu ngay wax mburu céréale locale mënoo ko defar te amuloo blé. Hmm. parce que ñun dañu am il faut nga comprendre de 2000 en 2015 par exemple dañu jógee si cent 000 tonnes d' importation de blé ñu ngi si cinq cent quatre vingt quelques mille tonnes d' importation de blé te projection yi mën na bay un million d'ici quelques années n'est-ce pas mm. loolu waraloon sensu ñu ni kon nañu def incorporation de céréales locales pour feeñal loolu pour jàppale mbay mi loolu ñu ngi si y a deux cent boulangers yu ñu si tànn mm. jàppale leen pour loolu te deux cent boulangers yooyu formé nañu trois cent boulangers pour ñu def loolu donc loolu suñu vision la pour simplement vous dire si loolu nag daaw jël nañu ñun euh, quatre mille pains par semaine di ko jox may école cinq écoles yoo xam ni défavorisées dans la banlieue pour ñu tàmb ko n'est-ce pas ren dañ ko defaat tout simplement vous dire ñun action sociale yooyu dañ koy def pour wan askan ni leen mburu mi lañ war a jëm mais nag quand même nit ki bu defaree mburu boobu te population bi jëlu ko day am problème. Hmm. léegi nag communication. pour que ni ñi am askan bi ñu xam leen ñu ni war ngeen consommer lii parce que bu fa lay waxee nii l'apport nutritionnel hmm. façon mburu yooyu boo koy lekk. yenn problème mu nutrition yi da lay gën a euh, problème cardiaque yi. problème mu constipation. Hmm. yooyu yëpp doo ko amati. très bien mais xam nga loolu nag loolu loolu loolu mooy loolu moom action la si biir nii. waaw bu bu boobu pare woon nañu de mais maa ngi ñëw léegi si yow. mais mais mais mais mais mais nag quand même une fédération aussi du yem loolu rek du ay rôle am. très bien rôle am mooy suñu yeneen membres yi nga xam ni ñu ngi si jafe-jafe. Euh, ñu wax ñu ko dañ siy taxaw mooy taxaw bi mooy. aujourd'hui dañu am problème structurel. Hmm. am nañu problème prix farine. très bien ñaar yi la ñuy y loolu mooy loolu mooy man benn benn observation bu ndaw rek. Hmm. et je pense que loolu wax fa dëgg yàlla war ngeen xool en tant que fédération ngeen xoolaat seen bopp. en hmm. tant que sénégalais. parce que aussi quand même euh, on a constaté ah que ni benn nit xaw ma turam peut-être xam naa ko peut-être xaw ma ko mais en tout cas benn nit jot na créer benn entreprise. di yul di yëngu ci wàllu boulangerie. Hmm. ubbi benn. farine. non boulangerie. ah d'accord ubbi benn ubbi ñaar ubbi ñett ubbi ñeent ubbi juróom ubbi juróom-benn ubbi juróom-ñaar ubbi fukk ubbi fukk ak benn fukk ak ñaar. et cetera ba vingt et quelque. Hmm. et ça fonctionne et vous êtes yéen benn benn benn. fédération benn fédération de sénégalais yàgg ci kii bi di ko revendique je pense que il est temps quand même benn moment ngeen xaw a yeewu tuuti parce que nu ñooñu def ba teg affaire bi mu avancé mooy li ma def ko industrie. muy muy générer autant d' argent boobu di leen def ombre. parce que ba ñu leen rang weeru non non dafa ndànk rek. <laughs> non pour y arriver xamul tax mu am importance. Mm. est ce que loolu amul répercussion ki seen problème tey jii. c' est important parce que no xaaral rek xaaral rek mm. parce que wedd itam gis bokku ci. ah ñun ñi bu ñu nekkee télévision Sénégal yi ñu RTS Sen TV 2S TFM ak Walfadjri yeeg ñoom ñëpp bokk ah vraiment damay bëgg ay canal mun nañu jógee fële de mais bu dee bu ñu ñëwee géej ñëw Sénégal fii teg fi kii teg fii euh, teg fii chaîne bu sénégalais waaye dañu jéem a ba du ñu raw. non non non non est-ce que vous ne souffrez pas aussi de ce problème là. que très bien observation la rek booba leer na. waxal euh, waxal gaaw mais euh, dama bëgg dama bëgg ñu comprendre que ni. si am na Sénégalais yoo xam ne. Hmm. mais ñu ngi ubbi ñu ngi ubbi six six boulangerie kii xam na ki muy wax am na plus de six boulangerie. waaw ah. léegi ñu bëri am nañ sept boulangerie. Hmm. aussi kooku chaîne bi ngay wax est-ce que mburu kese la est-ce que ban quantité mburu la fay la fay la fay defar justement c'est-à-dire que je d'accord ah moom am na point chaud am na lépp si biir. n'est-ce pas. waaw moom laay wax ni. est-ce que vous l'avez pu mais léegi nag c'est les moyens aussi mais bu ñu amul moyen yooyu. duñ ko mën def. non non non madame Mbaye di wax rek c'est pas mais diversification bi laay wax. waaw dama ne xam naa mburu benn boulangerie mënu laa générer rapidement de l' pour nga mën a ubbi. waaw mais ndax indaale na mburu pour jàkkaarloo wala. donc donc mooy. mburu bi ngeen daal la. ñu indaale mburu a démontrer xam ne hmm. nga kii nu ñu koy waxee. tous les quartiers populaires yi fi ah. gay waaw mais man de am na ñoo xam ne mi ngi jàkkaarloo ñoom face to face teewul ñooñu ñu ngi liggéey. Amadou Gaye di nga ñëwaat ak échantillon comme ça mu gën a leer en attendant je pense très bien que prouesse bi Pape Amadou Pape Abdoulaye Seck def si ceebu waalo bi bu ngeen ko si ñaaxee mën na kaa def si si dugub jeeg lenn pour ñu gën a mën a. dund suñuy céréales waaw nee naa la problème structurel problème beneen problème mooy. Ah, le prix le prix du euh, farine bi. oui bu dugub bi ak mboq mi mais dafa am volonté de l'État parce que yow tey yow nga ni ma ma jënd prix cher prix dugub bi. interpelle le ministre def na ko ceeb def si si mburu na par exemple. Euh, mu am TVA TVA. waay sur prix dugub ak mboq yooyu na. loolu yëpp production non mais loolu waxtaan sax production ñu gën koo promouvoir. voilà merci beaucoup la prochaine nag mais nag mais nag pour pour pour ñu mën a gën a conclure. waay de damay conclure. non pour mën a gën a conclure da nga waroon indil sama booy mburu ñu ñam mais <laughs> comme indi woo mburu nag. non non non non euh, TFM moom samay partenaire la. moom xam nañ ñoom. noonu ah, incha allah daal waaw ñoom ñoom danañ xam danañ incha moom. ah da nga fi indi ñu bëgg rek maa sax. Ah, ah, bëgg nañ kay. ah li ma bëgg wax li ma bëgg wax rek message euh, nekk si jafe hmm. bëggoon la nguur bi xam ni sànq dama ko développé nii il y plus de six cent quatre-vingt mille personnes. ñuy dépendre ñun boulanger ñu bari précaire. ñu amuñu nekk nañ si jafe-jafe tey parce que su ma nee trent cinq mille emplois wala quarante mille nañu ñuy dundal xel na si job parce que benn njaboot benn père de famille rek je pense que këram mën na boo ko xaymaa na ko dix personnes. donc ñooñu tey bi may wax yow nii tey am nañ français yu tëj yu ubbi ñu ñaan nguur rek ni ko am nañu jafe-jafe. aujourd'hui boulanger yi sonn nañu mhm. te ku dem mënatul dem da ngay taxaw prix farine bi mi ngi si biir waaye nag li ëpp solo loo xam ni li ñuy wax nu leer laa wax mhm. immédiatement laa wax nekkul du ñu lu ñu forcer état mais immédiatement nga la waay na toutes les grandes villes aujourd'hui war nañu arrêter vente du pain dans les boutiques très bien pan de problème d'hygiène yokk koom-koom réew mi ci loolu parce que nee naa la sànq quatre-vingts milliards yi nekkul suñu day génn bitim réew ndaxte la boo ko xoolee ñu yore système livraison bi yëpp ay étranger lañu. dama bëgg bëgguñu egg si patriotisme économique de trop. mais xaalis boo xam ne mi ngi génn si réew mi plus de 80 milliards. war na fay des très remercier leen si vraiment opportunité bi ñu am nii. non non yéen moom pour am suñu pour wax suñu jafe-jafe yi. très bien seen i fi bopp la sonn nañu nag. pour wax ni sama mbokku boulanger yi nag bon ñoom. mais boulanger ils sont aussi loquaces ça facilite les boulangers pour vous dire que aujourd'hui oui cette émission. oui euh, yaakaar naa boulanger Sénégal yëpp koy seetaan tey. que suba du ma fay mburu de xul leen ma fii. parce que parce que <laughs> fay mburu parce que moom tey moom. <laughs> oui Sédhiou. oui Goudomp Tanaff. ah bah oui oui. vraiment d'accord naa ñëpp nga sax lépp am lu ñu xaar dañuy dem ay assises. très bien nañu wan nag. non dañu ko war a bàyyi dañu war a bàyyi jaay damay arrêté jaay mburu dans la boutique. danaa wàññi TVA bi si farine bi. déedéet en kay en deful dana jafe-jafe de. alors bu ko deful dana am jafe-jafe de. Ah, eh. euh, monsieur monsieur Gaye xam nga Gaye dafay def comme gars yi bàyyi bi pendant quatre heures au lieu d'une heure. non dama ne ah, non justement mais waxtu bi moo jeex formation la dama ne ñun dañuy. mais il faut que il faut que ñëwaat dama formation la dama ne dama tey su doon tey. mais je vous ai remercié deux minutes. techniquement dama lay <laughs> techniquement su ma la woon euh, su woon euh, si benn tableau court. oui wala mburu lu muy formation bi. allez très bien je lance le générique. voilà c'est ça merci beaucoup. techniquement daal mooy indi woon mburu mi fii.